أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطيب بنظرة تأتي لنا بالظفر
sooratul baladi saaru dëkk makkiyatun ko jóg makka la ishruna ñaar fukk la aayatan ciy laaya bismillahi sos na ma wax sama ci tudd turu buur arrahmaani ka di aji xéewal mindaafoon yépp ci addunia arrahimi kay aji xéewal jullit daal ci àllaaxira laa uqsimu dana ma géñ ñu ne laa ji zaid la bi haadal baladi ci bile dëkk te mooy makka wa anta te yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xillun aji aji xeweeku nga bi haadal baladi ci biir dëkk yow nag yawi naa la ci dëkk bi dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne yàllaa ko xormaa xorma jooju ko yàlla xormaaloon ba nit bu fa dajee ku rey baayam sañu ko wax dara sañ ta rey ku ko reyal mbokkam sañ ta def dara ca biir xit xaram jooju de xaram jooju yàlla wax nag ci la bëgg a yewi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yéefaru màkk yooyu yonent bi yar leen yewi boobu nag moom la ñuy wax ne moom la yàlla yewi yonent bi ci fii ban ko koy wax boobu jàpputoon ne fatxu màkka te dana ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg màkka ak xare te booba buñ tuubutoon wëññeeku kon dana mën a xare bu ñëw wa waalidin gëñ na ma ci baay ñu ne mooy aadama wala ñu ne mooy bépp baay wa ma walada ak la mu jur ak bépp baay ak lu mu jur laqad xalaq naa ñun day bind nañu liin doon géñ mooy lan laqad xalaq naa ñun day bind nañu al insaana xeetu nit fii kabadin ci coono man yàlla naa ki nga xam ne naa bind nit ci coono nit ki nag coono la nekkee waxtu wi mu nekkee ci biiram ndeyam ak xat xataa xataay ak roxum googa mu nekk ak la nga xam ne lii moo ko ëmb ak biir bi lépp coono la nekk ci moom ba yàlla digle mu génn ca biir boobale waxtu wu génnee ci biiram ndeyam dal di tàmbali dugg ci coono yi coono ba muy njëkk a jànkuwanteet mooy dog bi ñuy dog lu tëm ñu dal di ko yóotu ci saasi yóotu lutt bi ne ko tappit dog loola coono la mu jógee ko foofa war a nàmp xamut nu ñuy nàmpee wuute na ak yeneen mbindeef yi yàlla bind moo leen mbindeef moo xam ne nii yàlla bind na ko muy nag muy xar muy bëy muy mboolem yiy nàmp ku ci jóg rek ba na xam fa weenu ndeyam nekk mu dal di buur rek waxtu wu mat ay tànkam ma nee taxaw te loolu gannaaw ay minit rek dafay dal di wuti battam ndey ja tàmbali di nàmp doomu aadama nag munut loolu mu nekk ci coono boobu bu saxee ween yaaye ma ko ko jox waxtu wu kiifee mënta wax ci kiifam dara bu may jooyam ndey ci yëkkati ween jox ko bu maree mënta wax ci maram daal ndeyam yëkkati ndox jox ko mu nekk ca loola nekk ca loola nekk ca loola ba jot a fer ñu feral ko meew mi miinoon moom it mu duggati ci beneen coono muy coono fer mu nekk ca coono booba nekk ca coono booba ba miin ko bu ko miinee jot a dal jàng ñu ne ko acakaay dem ci daara ji mu dem ci daara ji ak coonoy sëriñ daara yi ak ak lañ leen di wan ak lañ leen di def mu nekk ca loola nekk ca loola nekk ca loola ba mat a génn ci daara ji ñu ne kaay dugg ci jàngu jàngu yi ñu dem dugg ca jàngu yi ci ustaas yi nekk ca loola di jàngu jànkuwanteeg coono yooyu nekk ca nekk ca nekk ca ba foog ne nag coono bi jeex na ñu ne ko acca jabar a googu ñëw wuti jabar mu dugg ci coono jabar muy coono yépp mu gën cee métti mu nekk ca ba yàlla indi njoboon ñu ne samp kër ñëw na sampam kër dal di dikk moom itam mu gën a métti ci coono yi nga samp kër nekk ca ak njaboot ga foog ne coono yi jeex na noonu njaboot gi dal di bëri ak mat dikk la nga mënoon mënatoo kattan li jeex boobu beneen coono ñëw ba ba ngay daje ji ak sa borom loolu moo tax alxuraan ne bind na doomu aadama ci coono awax si bu ndax dana mu jortu moom wala ñu ne mooy abu lashad ibnu kilda allan yaqdira naka xattantit alayhi ci moom ahadun kenn ndax dafa naw kattanam ba foog ne kenn mënalu ko dara yàlla mi ko bindoon jox ko kattan loolu koy mënal na ko dara awax si bu ndax dana mu jortu an lam yarahu naka gisu ko ahadun kenn ndax yaqulu dana mu wax moom kooku ci noone gi muy nooneeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ahlaktu yàq na ma maalan halal lu ba doon juddi aji bari de noone gi may nooneeg yonent bi ak di xeex ak moom day yàq naa ci halal ju bare bare bari awax si bu ndax dana mu jot ne an lam yarahu naka gisu ko ahadun kenn ndax dafa foog ne kenn gisu ko ndax am ñu ngi koy gis alam najal ndax defuñu ñun yàlla lahu ñeel ko ay nay ni ñaari bët ndax ñun yàlla defaluñ ko ñaari bët yu muy gisee ki la defal ñaari bët nga mën cee gis li ngay gis lépp te ab taaj la rek ci kattanam kooka mën na laa gis wa lisaanan ñu defal ko aw làmmeñ wa shafatayni ak ñaari tuñ ñu defal ko làmmeñ ak ñaari tuñ wa hadaynaahu tanu woon ko an najdayni ñaari yoon yi yoon wi jëm ci him ak yoon wi jëm ci hay falaqtaxama ana lu tere mu soobu al aqabata yoon wa ba jéggi ko lu tere mu soobu yoon wa ba jéggi ko baatam iqtixaam mooy dugg goo xam ne dafay ànd ak coon soobu goo xam ne dafay ànd ak coon masalan niñ koy misaalee bu ak lakk ta jàppee yàlla ñu ci yàlla musal néeg jàpp ca kaw ñu ne ndab yi ak bi ci biir dara génnagul dugg gi nit kiy gaawantu dugg ca néeg boobale loola ñuy tuddee iftixaam ci arab du dugg ak sago daf koy dugg ak ak coono ak lu ñuy ragal mu ne nag aqabatu boobu doomu aadama ji dana ko soobu ñu ne ndax aqabatu boobu mooy siraat jéggi gi mu ko nar a jéggi jëm aljanna ba tey loolu it dana am naka la koy jéggee ci melo yi ñu koy jéggee yu bare bari la ci gaawaay am na yoo xam ne yi ni melax lay mel am na yoo xam ne ni xëf ak kippi am na yoo xam ne ni gaawaay ak naaw am na yoo xam ne ni xelu naaru góor am na yoo xam ne ni daw am na yoo xam ne ni daw ak tànk am na yoo xam ni gaawante ga daal mu ngi aju ci xiw ak jullit bi nga xam ne bii moo koy jég am na ñoo xam ne dégg rek sax lañ cay am yàlla ñu ci yàlla boole wa ma adraka ana lu xamal la sax mal aqabatu lan moo di yoon woowule ab jéggéen yoon woowu ñuy wax ak naka ñu koy jéggee lan moo la ko xamal mu ne fakku raqabatin mooy goreel jaam boo ca bëggee mucc day mooy nga goreel jaam goreel jaam ci yi gën ci yi ñuy jegeñ loo yàlla ci la bokk wax nañ ne waxtu woo goreelee jaam cër bu jaam ba am rek goreel nga cër booba ci sa bopp ci safara bo bu buy bopp bi goreel nga sa bopp ñaari bëtam goreel nga sa ñaari bët sa làmmiñ cër bu jaam bi am rek goreel nga ko yow ci sa bopp ci safara loolu moo tax ngoreel jaam bi jaam di am mu nekk lu baax aw taamun ikelale fi yawmin ci bés di masrabatin bu di borom ak xiif wala bés boo xam ne bii xiif ba métti na lool nga am ñam lexal ca sa ay mbokki jullit soo baay xalifa wax na ne wa luqmatun tahwi fi jaw fi jaa'i afdalu min binaa'i alfi jaami' benn tib boo dugal ci biitab ku xiif mu ne moo gën tabax junney juma kon lele lu yàlla fonk la yatiman jirim la maqrabatin bu di borom ak jege ñaare nga leyal ko nag ñii ñoo jege na jirim boo xam ne bii dafay jirim ba noppi te am na ak jege ñaare ci yow bu amut ab jege ñaare it tey jirim ndax am itam war nañ koo lehal war nañ ko tam aw miskinan waka wala miskiin la matrabatin bu di aji takkoog suuf ngiram ñàkk wala miskiin moo xam ne mu nga ñàkk a ñàkk ba nga xam ne amul lu mu hoddoo ba daanaka awraam toog ci suuf la koy suturaalee dajale ay cëram loolu mooy ñàkk gi gën a métti moo tax imam Malik waxoon ne miskiin mooy loolu Shafii yi ne ko déedéet miskiin moo gën a takk faqiir ndax wax nañ ne amma safinatu fa kaanat li masakina ki dem ba am ay gaar am gaar buy daw ci géej dañ tuddee la miskiin kon fak faqru kon faqiir moo gën a metti miskiin suma kan suma kaana topp mu nekk min alladina bokk ca ñaaña amanu gëm nañu ki goreel jaam bi nag wala mu leyal miskiin mi wala mu leyal jëriñ bi jëf jooju nag balaa mën a jëriñ na fekk gëm jiitu ko jëf moom bu ko gëm lalut jëf ja du tëdd fenn jëf yi xéefar habaan mansuuran rek lay doon pënd boo xam ne dañ koy sànni mu naaw ci àll bi noonu lay doon jëf faw gëm yàlla lal ko bu ko gëm yàlla lalee jëf ja doora mën a jëriñ wa tawaasaw dañ dénkante bi sabri ci muñ wa tawaasaw dañ dénkante bil marhamati ci yërëm yërëmante ci mbindeef yi ñu dénkante muñ dénkante yërmande walaayika ñooñale gaay ñi doon mellal ci ñi nga xam ne ñoo goreel jaam ba wala ñoo leel miskiin ba wala ñoo leel jirim ba te bokk ci ñi gëm yàlla di dénkante jëf yu baax di dénkante muñ asxaabul maymanati ñooy waroon bi ndeyjoor ñooñu de ci àllaaxira ñooy ñi nga xam ne bu yàlla taxawalee fencam ak jaam yi dañ leen di wax ne leen yéen topp leen seen ndeyjoor nag dem tàbbi aljanna kon kooku jéggi na jéggi na àqaba biñ doon wax waaw kon bëtt na ko dem na walla li na ñaaña nga xam ne ñii nag kafaru weddi nañ bi ayatina ci alquran suñu hum ñoom asxaabul mashamati ñooma di waroomi càmmooy ñi nga xam ne nag weddi nañ suñu alquran jii ñu wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy warami càmmooy te ñooy warami safara yàlla ñu ci yàlla musal alayhim aji nekk la ca kaw seen naarun safara musadatun bu di buñ tëj ci kaw seen safara ci safara la ñuy tàbbi boo xam ne bu ñuy dugg rek ñu ne ràpp bunt ba gën ak ñerment wala sëxat du leen ca mooy lépp moom ñoomay nekk ca biir ba nga xam ne ku nekkul ci biir sax du xam ne lii ñu nekk safara la yàlla ñu ci yàlla musal اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ولينا على اخره monsieur la ñuy faar yàlla ñu yàlla may la yoon bi monsieur la ñuy njuumte yàlla ñu yàlla baal te xamal ñu ko yàlla xam ne ca dëgg dëgg yàlla ñu ko xamal te defal te defal ñu ci barke ci alquran yàlla ji ak ñu ko wàcce ci moom ak ñu tax ñu wàcce ko ci barke bi leen islam yàlla ñu yàlla defal jàpp ci réew mi yàlla ñu yàlla defal jàpp ci dëkk bi yàlla ñu yàlla defal jàpp ci mboolem réew yi nit ñi def ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ñu ngi nekk ci weeru koor kenn waxtuñu ci weeru koor kenn waxtuñu ci weeru ñaar nañ jublu ci yàlla ci ak suñuy xol te tàllal ko suñuy loxo ñaar yàlla defal ñu suñu bëri bëri teggil ñu mboolem fitna yi teggil ñu mboolem balaa yi yàlla defal loolu